à tous d'aller na ak jàmm ci Diaspora News TV ñu dikk ak yéen ci xibaar ñu doore ko wax ci ministre du tourisme Mame déclenche une na procédure au fond président du tribunal correctionnel Mamadou Yaxam Kayta, dal dikoy allouer ginnaw verdict bi ci mbirum Prodac condamné jitu Pastef Ousmane Sonko mu fay 200 millions de journal bi di ñu xamal ne Mame dafa basé aussi jugement si disponible depuis euh, la dernière fois ngir euh, louer service ben huissier de justice ngir mëna service signification maire bu sur loolee nag amaloon nañ ko démb ci fàttali ci dossier bi partie civile Mame Mbaye ak parquet dañu interjeté appel bi te it même bu ñu kontaanee ci condamnation bu opposant bi le ministre Mame mom Niang moom satisfaction totale ci montant bi nga xamante Ousmane Sonko jox na ko par contre défense son Sonko suspect euh, ñu changé wala écarté ko ci présidentielle yu 2024. ñu wax ci révélation bi constitué coup de tonnerre ci magistrature bi Sénégal journal bi di ñu xamal ne juge euh, Pape Mohamed Diop moom trois premières audiences du procès de ci diggante Ousmane Sonko Mame Le journal bi diñu désisté wul ben yoon mais plutôt ak le président du tribunal correctionnel bu Dakar buñu ñu ci journal bi juge Diop dafa am lu ko bett ci boobule décision buñu jëlé quelques heures ginnaw euh, audience bu jeudi 30 mars dernier d'exiger mom dañ ko wara notifier li président du tribunal def avant muy choisir Yaxma Keita ngir mu jël relais bi il s'est montré expéditif euh, même jour bi dafa daldi di lem boobu le mbir condamné Ousmane Sonko deux mois de prison sur sursis ak 200 millions demande en dommages et intérêts ci kaw Mame Mbaye euh, dossier bobu nak meun nañu wax né jeexagul parquet ak partie civile def nañu appel dossier bi mi ngi am euh, niveau au parquet bu procureur finalisé rapport appel bi dinañu ko transmettre procureur général mom mi war fixer date pour procès en appel. Yankhoba Diattara nekkatul deuxième vice président bu parti Rewmi kii di Idrissa que di président Rewmi wàccee na ko ginnaaw bi mu validé éventuelle candidature bi président Macky Sall mom leader bu Rewmi yàggul dara mu remplacé ko journal bi diñu xamal ne poste bobu la nak bimu yoron jox nañ ko kii di euh, Abdoulaye Ndoye di coordonnateur départemental bu réew mi ca Saint-Louis ba tey journal bi dañu xamal ne moom Abdoulaye Ndoye nommé nañ ko ci note de signature boo xam ne Idrissa Seck moo ko publié mardi passé kii di Yankhoba Diattara nag moom mi ngi doon sàkku euh, ñu daal di teggi nombal tànkam ci gouvernement bi en tant que ministre des sports ñu convoqué woon le lundi dernier ci sûreté urbaine bu Ndakaaru ci ndégalu ministère public docteur El Hadji Mbagnick placé woon nañ ko en garde à vue teg si defeere ko ci procureur une journée entière a palais de la justice euh, barki démb de l'usine na commissariat central ci faveur retour au parquet dit sukkandikoo ci journal le docteur Ngom dina am lu ko qui ci ay jeudi prochain lu ci yàggul dara journal bi duñu lien de parenté la ñu entre nous, ak membre bu PASTEF euh, ñu placé won ko euh, jamono sous les verrous bataille journal bi dañu xamal ne médecin bi oncle la ci Fadilou Keita di doomu Nafi Ngom Nafi fi présidente bu euh, docteur ñu à l'action de la justice mom mo consulté won Ousmane Sonko suma assistant jour événement au 16 mars dernier de audition wam comme témoin ci sûreté urbaine lu ci jëm ci cadre enquête bi présumé tentative d'assassinat bu njiitu Pastef Ousmane Sonko ñu bëggoon mu wax leen ay détails ci bulletin médical bu bu patient wam mom daal mu daal di euh, évoqué li di secret médical collègue am bi di Samir Simon Boulos mom tamit consulté won na Ousmane Sonko de même que docteur Ngom dafa bañoon wax euh, ci nonu nak euh, le procureur demande arrestation ñaari médecin yooyu docteur Ngom mom wuy si won convocation wam contrairement ak docteur Boulos mom journal dañuy xamal ne hospitalisé moo dafa hospitalisé woon loolu motax mu jéewul daal di ñëw sûreté urbaine ba tey ci xibar agent municipaux yi secoué nañu ki di Ousmane Sonko maire bu Ziguinchor ñom ñi bokku ci intersyndical bu liggéeykatu collectivité territoriale yi ñom nak amalon nañu barki démb arrêt de travail ak li di sitting ci hôtel de ville ba prévoir nañu poursuivre sen mouvement d'humeur bu ñu sukkandiko ci journal bi agent maire Ziguinchor yoyu nak dañuy réclamer augmentation sen salaire di xam gouvernement dafa wara les salaires salaires agents établis c'est le porte parole di Habib journal de di journal d'avertissement journal d'avertissement ay avertissement qui ay avertissement ci duñu arrêté mouvement en tant que service Ousmane Sonko accéléré wuñu seen demande ci noonu nag journal bi interrogé El Hadji Sayer Faye di adjoint du maire bu chargé ci planification ak ressources humaines di leen xamal ne municipalité bu Ziguinchor amul moyen relever salaire seen ay agent taxi promesse su état boobule engagé wul seen mairie. ñu wax ci instruction ci affaire commando bu passer accéléré ñu placé woon ko sous mandat de dépôt 31 mars dernier Kaba quitté des cerveau présumé sur la bande ñu génnee ko prison taxi entendre ko au fond démb ak le doyen des juges nous ñu sukkandikoo ci journal audition bi déroulé na ci teewaayu substitut procureur ba militant bu pastef bi nak deuk parcelle Kaba nous ñukay topé <clears throat> association de malfaiteurs terrorisme atteinte à la sûreté de l'État acte de manœuvre de nature à troubler l'ordre public ak li di participation en mouvement insurrection ñu fàttali ne yeneen patriotes yi inculpé nañu qui ci mbirum procédure vous leen ñu ko ak waxtaan bi dox ci Augustin Senghor ak Lat Diop réunion bu comité exécutif bu fédération sénégalaise bu football tangon na démb journal bi di ñu ñëwaat ci ak ñun Augustin Senghor di président bu Guédiawaye FC ak Lat Diop nag diggante boobu nag démb ay kàddu yu naqari na fa ci kanamu assistance ba bu ñu sukkandikoo ci journal bi lépp ci amendement bu ordre du juge ak directeur général bu LONASE remarqué ni avant ñuy poursuivre travaux yi dañoo wara calculer yenn ci nombre de points yi lu ci melni lu jëm ci instance bi ginnaaw démission bu président bu commission bi fa nekkoon Abdoulaye Fall journal bi ñëwaat ñëwaat ak ñun di ñu xamal ni Lat Diop moo daal di kii di Augustin Senghor di ko accusé ne dafa dugal loxoom ci fonctionnement commission bi te liggéeyul teg si ne après démission Abdoulaye Fall ci commission finance kenn xamatul instance bi di gagné ak compte banque yi président West Gorée bi nag di Augustin Senghor daal di koy tontu traité ko de d'indiscipliné ak arrogant teg si di ko xamal ne présence sous président Gidewa FC dans mës source de problème sen boobu nak installé malaise à Kane d'aller ci intervenir en sapeur pompier Abdoulaye Fall mom réitéré na démission wam Lat Diop euh, mi ko au pied levé du tarder, convoquer réunion mbokki fofu lañu la ak Diaspora News et bonne lecture.